mbokk yi nag xam nga fu ñu jëm dañuy dem seeti Macky Sall ak Abdou mbay ñoom ñaar jàkkaarloo face à face dama ne defante boo xam ne moo sap sap ñu xooli ñaari couple yi Abdou mbay ak soxnaam Macky Sall ak soxnam ña nga askan bi ñu seeti ñaari xeetu pré ñaari xeetu jàkkaarloo yi fan lay amee Macky Sall ak soxnaam Abdou mbay ak soxnaam devant le peuple sénégalais na ku nag sa tur sa sant xam nga dans l'ordre de protocole normalement moom fi waroon jiitu ndax man maay président réew mi waaye pour walla na ñoom dañoo tardé fu ñu dem ñooy mujjee ñëw te boo ko xooloo ci protocole ñoom ñoo waroon njëkk man ma mujjee ndax man maay kilifa réew mi moom njool Sabador moom njool weex li ma ko bëgg a xamal mooy mu xam ne na Sénégal du dëkk boo xam ne da ngay jóg di wax loo xam ne amoo fenn foo ko teg derrière un grand homme il y a toujours une grande dame derrière moom mi nga xam ne man maa nekkoon patron nekk patron ñaari yoon mu nekk sama premier premier ministre yàlla dem ma dem ba xam ne defoo tële ma jëlee ko fa nekk presi nekk président de la république kon ñaari yoon laa doon porte ci moom maa ngi ko dégg mu taxaw di wax ci presse bi lu ko neex di ma yàq lu mel ne xeme te xamul na Sénégal benn bopp la loo fi wax gars yi dégg ko ba may ñëw sama bureau di ma raamal di ma naan son excellence sa majesté bu dul woon yow du ma nekk ci gouvernement di ma feccal tey amoon dara looy wax lu taxaw di xëpp kaani ci li nga xam ne moom laa togg ba mu ñor te war ñu ko consommer monsieur le président s'il vous plaît euh, chers compatriotes madame tagg sa loxo euh, sénégalais du Sénégal ah, sénégalais de l'extérieur maa ngi am contenté bu baax di leen nuyu bu baax di wax ne li ñu war a wax kenn mënul tee ñu wax ko ma baamtuwaat ko li ñu war a wax kenn mënul tee ñu wax ko mais dëkk bi ça ne marche plus dëkk bi doxatul dëkk bi demul diikul puusul pasul bu fekkee moom moo nekk njiitu réew mu ne mus na nekk suma patron mais dafa am service bu ma ko doon rendre mu may rendre service ndax bu fekkee da nga may liggéeyloo uh-huh. di ma fay xaalis taxul nga yeb ma parce que dama lay jox sama xam-xam nga may jox sa xaalis ci militant léegi nag du ñu nangu dëkk bi ñu fi texe ay marche ba pare mu naan caution yi dañu koy def 65 millions ba pare mu naan dafay am parrainage man loolu du ma ko nangu tey du ma ko nangu ëllëg Olof Njaay nee na nag ko ay bokk ko jeew ko ëppul ay bokk mënoo man ne may ma tuuti réew mi boo ko nga fekk nga mën a wax olof yi lar nañu man mi nga xam ne sax sama olof warta leer ndax xam nga ne Fatick laa juddoo màggee Fuuta diggante séeréer ak Haalpulaar kon man tey sama olof waruloon leer waaye moom mi nga xam ne fii la juddoo Dakaaru Njaay jal job sango mare pour mu wax ak yéen ay olof yu leer sax dafay jéem koo ñax-ñaxal di ko jéem a prononcé te li ngay wax yow gëmuloo ko eh, eh, dama na làmb ji xam nga lan moo ko yàq mbër yu ndaw yi nga xam ne amaguñu licence bëgg buuxante teg mbër yu mag yi dama ne ku nekkul amoo 65000 signature doo bokk ci combat yi nga xam ne mooy am dama ne promoteur bi tëgg lamb ci stade xaalis lay ut utul xaalis waaye kon du tëgg mbër bu kenn xamul parce que supporter yi bu ñuy ñëwul supporter mbër bi ci boppam ak ki nga xam ne ñooy promoteur bi du ñu am ñu mën a jënd Sénégal nag dootuñu bàyyi ku jóg rek di wax lu la neex pour xëccoo réew mi c' ça ça va dootul amati. mais démocratie dafa war a am. bien am na bàyyi pare parce que dagguma la. allez-y dagguma la te su soxna bokkul ci candidat yi moom na toog yow laay waxal. réew mi benn bopp la mun a kon xar ñaar te li fi am mooy Sénégal dootuma nangu anarchie boo xam ne day am tey marche suba conférence de presse di yàq nit ñi lu mel ne xame mais kon loolu il mu jeex. loolu amul problème dinaa ko régler te ñaareel bi li ma bëgg ñoom ñu xam ko mooy xam nga ku ñeme sa mbër wóolu sa mbër mais wan ko na supporter la te 65 millions signature mbay waxatil distance comme bi ma la dama ne je suis son président du yow yaay distance d'accord mais on est dans un débat on est dans un débat tamit da ngay taxaw xool d'accord monsieur le président mais Abdou c'est pas grave parle c'est tout simplement ça euh, euh, fan la yemoon sax ma toog voilà réew mi dafa am démocratie ok d'accord voilà dëkk bi dafa am démocratie ñun li ñuy ñaxtu dafa nekk loo xam ne dañ ko war a kaas def ñu metti parce que dëkk bi ñuy jàpp ay opposants di tëj di jàpp société di tëj di jàpp ay kilifa ñëpp aada ak diina di tëj c'est pas normal comme ni ko waykat bi doon waxee mu ne jimbooxi jimbooxi jimbooxi jimbooxi daanu Jimbori buur daanu Jimbori dafa falu buur jàpp ku ko neex mu teg di koy door vive la démocratie vive l'opposition 2019 Macky na dem na dem na dem a dem a dem ñuy xool Jimbori moom moo gën a nuroog parce que moom teg ko ci bopp réew mi war a doxal Sénégal mu jëm kanam war a nekk premier ministre exemplaire nekk lu doon nelaw di lido dama ne la nekkoon ci biirom di lido di damyee di mariage may ma ñëw damay may ma ñëw damay may ma ñëw parce que doon def tonkaare non danga may may ma ñëw dañ doon tonkaare damay dëgg quand même un peu de respect parce que je parle avec le président de la République du Sénégal fa laa la mën a yem madame bul wax li ma leen bëgg xamal yéen waa Sénégal mooy kii li may wax ay jimboor yi est man dama teg Sénégal nattu teguma leen benn nattu liggéey laa def guddeeg bëccëg Sénégal ngi avancé mu ngi émerger mais ñoom lu ñu bëgg te Abdou xam nga nit ki danga koy waxal loo xam ne moo am bëgg tax am réew mi mënul tax nga yàq dara lii ma la ñu wax porte presse naa la xamal ñaar billaay wallaay taalaay on nën da jë bu weesu affaire présidentielle ma non non man kan du ma sosal kan mooy Jimbori. taxawal nii kan mooy Jimbori. taxawal nii taxawal nii. kan mooy Jimbori. man waxuma la Jimbori. man waxuma la Jimbori. man waxuma la Jimbori. man waxuma la Jimbori.